benn moroom sama génération yabuma ak ku mu mënti doon dafa am fu ma jaar ak yow nekkul mu mbër boo xam dañ la këf rek ñu tëbal la bëgg la yóbbu foo yeggu déedéet dama bëreeg sama morom mu jeex fi mu toll nii soo ne boo ñaan dëpp bu demee tamit day jox ay revanche rek waaye amul benn moromam bu bees muy bëreel dama jaar fu war a jaar ñafe sama laaj ba fi ma rek ak nu mu mënta demee mun ko ko bañ a war nga bañ ma supporter nga waxal ma lu ma neex bu la neexee mais fu ma yegg si dama ñafe suma laaj ba yegg si te ba ma ñëwee tamit ma boo xoolee ñu naan début booy ñaar dafa difficile ci poids lourd parce que ñaar ñu gën a ñaar yi gën a métti bëree ci poids lourd laa laa dajal. poids lourd li ñuy yëpp ñaar ñu gën a métti poids bëree ci poids lourd muy Tapha Tine ak Lac donc sama yoon foofu mu métti parce que ñi may bëreel ay pongal lañ yoo xamante ni duñ jël yenn risques yi te am nañ doole te seen nu mu toll donc sama yoon foofu mu parce que su ma ñëwoon su ma neexoon damay damay taamu damay jéggi damay moytu. am na ñu ngi ci làmb yàgg yàgg yàgg ngi ci làmb bay yegg bëriwul bu la neexoon ñu yegg mais man defuma loolu dama ñëw bëre ñu mu bëre mais wax ji nga wax nii Fadel nu mu la jaaxalee jaaxal moo am moo jaaxal ñëpp. Balla Gaye dama lay wax dama nga faju ji boo ñëwee boo ñaam mi ngi fi da ngeen war a bëri mais dama la faju boo wér boo ñëwee ngeen bëri. war dama wax boo ñaa ak Balla bëreetuñu Balla yeeg da mën nga bëri ñu ngay bëreet boo ñaa bëri du ngay loolu moo fi am amul ay dem gauche dem droite. donc ñun xam loolu moo tax ñu xam li ñu war a wax parce que li ñu war a wax tamit dañ ko teg ci yoon ñu jekki nekk nii rek di wax nii mun naa ñoom bu ñu ma génnee wala ñu may sànni ay traak ma génn wax sama combat bu mu jeexee ci jour bi da nga mel ni ñoom dañoo daan te sama combat tafatin li ñu dugal seen loxo yàlla xam na ne bak chance sa xam naa lépp mais laamu moo tëddee noonu bu la neexee ñu dugal ci seen loxo amul problème. waa ma rek waa Kër Balla Gaye sama la dagee sama combat tafatin ni ñu ci duggee lépp xam naa ko sama combat la la njëkkee parce ñëpp ci mbir laam lañ ne sama combat yaay bi sa ñaari ba di xool. sëriñu Balla Gaye ñëw na ci laamu ji ñu jàppale ko ci laamu ji dooleel ko ci laamu ji parce que booy ñaa moo tax. waaw déglu ma rek dañuy waxtaan. waaw benn lañ mais mosuñu gis combat la dëgg im ñëw ci laamu ji xaw ma im nu la xam comme naan. comme naan non dañuy waxtaan dëgg rek sama lañ ko ñëw impliqué ko carrément ci combat bi. parce que boo ñaa lay bëree. comme parce que boo ñaa lay bëree sama combat kon Tapha Tine tamit ñu dugal ci seen loxo ñun ñëpp ñu xam ko. léegi loolu lépp dafa jeex ñun baala Gaye dañ ko bëgg a wax ñun waa kër booy ñaa liñ ko waxal liñ ko man manigancel tegal ko ko pour mu dem indi certificat médical bu woon ne mënu bëri mois de mai mois de juillet lay bëri te juillet lay bëri loolu yëpp jaratu ko jaru indi certificat médical jarul leeral da nga pare pour bëri gi dama bëri gi mais ñun am nañ droit dootuñu bëri ak yow ñu def seet benn adversaire parce que laakul am nga droit tànn sa adversaire ne kii ngaay bëri ak kii mais Boy Niang ak Estefan nañ droit tamit tànn seen adversaire dañ leen koy nangul pour bëree ku leen neex. Père Gaston sunu papa la boo xamante ne ñu dañ ko jox ci respecté ko mu nekk koo xamante ne ba mu ñëwee ci làmb yokkul wàññiwul dafa yokk ñun day duñu wax lii tey suba wax lele mu nekk suñu papa bu ñu respecté du ko ñaanal mu yàgg ci làmb baax na li muy doxal ci làmb mais moom dafa am loo xamante ni moom liyee maag moom mu jël xaalisam jox ma donc après loolu maa ko tànn maag moom ak sama Estefan ak moom. le fait que dañ koy delloo waxtaan la le fait que dañuy jox beneen combat waxtaan la. mais li ñu bëgg a leeral mooy waa kër Balla Gaye ñu xamal ko. bala Gaye xam ko ñu nekk ci ginnaaw xam ko ak ay sinab kanam ñu xam ko. non damay wax damay wax man waxtaanu man man man waaw comédie ma quoi dama leen di wax pour ngeen xam lu may wax quoi. yaa ngi ñëpp ñu xam ko parce que waa kër Balla Gaye dafa ñoo xamante ni dafa am fu ñu jaar ma ñoom mais a xam ñoo xam ne fii yàlla rek moo fi nekk. fii kenn mënu dara suñ borom rek moo mën suñu borom moom mën moo tax ñun loolu lañ xam ay taalibe Cheikh Anta Sall ba mais dañoo xam loolu moo tax wax bi mu bëri bëri yëpp déggoo ñu wax ku ñu sànni ay xeer génn wax ñu ay da ngay wër rond-point ay lii ak lii ay dóom bëri yëpp déggoo ñu wax mais suñ borom dafa àtte ñu xam ne yàlla def ne kenn naw te ñun faaluñ kenn ragaluñ kenn ak ku mun doon boo ñaa nag dafa nekk mbër boo xamante ne dafa am mental boo fa dafa ñu mu àndal man yenn le fait que seede yàlla le fait que sax sama combat ñoom mun nañ ko tourner wëndeel ko parce que sama nekkuma mbóor boo xam ne ay sinab wane ay gàllaak ay sinab yëg ci ay guub moo lay déstabiliser man nekkuma genre laa man ma nelaw na loo xamante ni Balla Gaye moom nga xamante ni carrière am presque bu mu bari bari cinq ans six ans moo ci des moom nga a wutal yoon moom bu yàlla defee jàmm rek ci moom ak ci man dafay bàyyi lam bàyyi ma fi donc booy xool yoon di ko wutal yoon muy wut fu nooy naan day tourné booy ñaa bàyyi ko fi dem jëli girek yooyu parce que nga ni dafa nooy non non ñun duñ de waaw non boo jàppee loolu yow dafa ni da ngaa war a ci giri parce que ñun xam nañ lépp xam nga mbiri làmb ñoo fi ne man lu ma wax fii balaa ngoon day dem géejuwaay foofu tamit loo fa wax balaa ngoon dafa yegsi parce que dëkkuwaay bi parce que dëkkuwaay bi waaye si ñu ngi may jàng seera en direct mais si pour wax ni dëkkuwaay bi soriwul boo tegee réunion sax waxtaan tënk balaa muy fajar Pikine da koy yëg parce que ñun dañoo roofloo ñun ak ñoom ñoom tamit loolu lañ am fii donc nag booy toog ne non sama mbër bi fi mu toll ni baaxagul wala pareegul li ma def direct ci booñaa il faut ma jër gii di defaru soog a ñëwaat seede yàlla loolu duñ ko nangu ñun waa kër booñaa non non duñ ko nangu forcé wul la nag pour ñu bëri ak ñun il faut waa kër Balla Gaye ñu xam loolu ne ñaa forcé wul na dafa war a bëri ak Balla Gaye léegi-léegi Lamine bu ñu bëriwul na dem bëri ak keneen sama carrière ko ne mais rafet nga boo ñaar toog di xaal Balla Gaye muy teg ay affaire naan kii laay bëreet kële teggil ma xëcal kii non non non loolu amu fi de. da ngay dem am droit bëre ñi ngay bëreet man tamit damay am droit ne man tamit dootuma bëre ak yow damay bëre war a mu jeex tàkk Gaston nag li ma sekk ak man ko yëkkati jox ma ko loolu sama staff dem nañ ci moom te ñun ak ñoom la nañ ci waxtaan ak moom lu ñuy delloo ñu ñuy delloo la lu jox jox ñu beneen avance lu ñuy jox la avance. loolu moo fi nekk. léegi boo xam a xam mooy comme donc am loo xam ne moom lañ koy waxal waa kër Balla Gaye bu ñu bëggee Balla Gaye lu nooy nañ ko wuti feneen wala comme Ahmed Aïdara fan yi moo nekk maire Guédiawaye mu woo ko fa muy jaay juuti wala dara foofu day yomb mën na yónni ne bu fekkee bëgg lu yomb bu fekkee dafay wut lu nooy Ahmed Aïdara fi mu toll mooy maire maa ko félicité sama grand na ko fa woo benn place muy jaay juuti muy dagg juuti dafa bëgg non non loolu dem ku xam làmb xam ni boo bëggee bàyyi fi booñaa dem gidi mënoo ko teg ci Palma def gidi 2015 da nga am victoire tawato moo ko dama expliqué rek grand bu baax la maa ngi koy nuyu mënoo ko teg ci victoire mënoo ko teg ci palmarès mënoo ko teg ci performance parce que 2015 boobu man teg naa ci six combats am naa ci trois victoires donc mënoo ko teg foofu. jënd combat jàmm merci. te tàngal ceeb la yëpp. donc nag yow da koy teg nii rek non sama mbër ni ma ko gisee nii pareegu pour affronter boo ñaa naa ko wutal benn combat en attendant mu defaru. boo ñaa toog xaar non man dama toog xaaral benn mbër ak ku ci mën doon pour ñu xam loolu bu baax Balla Gaye dafay dem bëre Gris Bordeaux boo ñaa dafay bëre keneen te du ma dëppaat di bëre ak moom moom tamit bu mu dëpp di bëre ak man ku nekk na jël sa yoon ñu connaît suñu yoon mu jeex tàkk loolu waa te man boo ñaa maa ko wax te nekkul loo xamante ni dama génne nii di wax boo gisee ma woone xam nga ñi leen woo téléphone leen pour ngeen ñëw donc staff bi ñoo wax te loolu lañ wax loolu lañ teg ci taabal bi terewul ko mu bëre keneen de am na ci droit mais ñun tamit am nañ droit ñu tamit xool keneen loolu moo fi nekk. parce que man Père Gaston moom laa signal Père Gaston moom moo wax ma te Père Gaston mën na sëkk pour tëgg beneen combat bu mag sax bu romb Balla mën na ko sëkk macha allah comprendre nga donc moom laa waxal keneen ku ne ci ginnaaw wala ngay wax ci ginnaaw wala ngay def sa ruubee ci ginnaaw loolu yaa sa affaire la yaa mais nag waa kër Balla Gaye ñoom ba ñu génnee wax ma li ñu wax yëpp wala ñu def li ñu waroon def waroon nañoo am grandeur buñ bëree Bombardier pare waroon nañoo am grandeur ñoom génn wax Mm. waaw parce que boo dara ci kaw boo ñaa wax ko déstabiliser ko waxu lu ne mu daanu nga jubilé kontaan wax li ngay wax yow tamit ba nga ñëwee ci géew bi ñu daan la ngay sulaati ci géew bi war ngaa mën a génn wax de